xaatim ay dossier wéccoo ay document administratif joxanteel loxo ci ambiance bu xaritoo la ñaari DG yi amale passation de service bi ca ASEPEX kii di Modou Mbène géey ñu tàbb ko ci bopp agence bi nag di leeral ci yan anam la bëgg a liggéey ñun ñooy liggéey ci boîte bi mën nan ko tuddee sax sunu doom la ñun ñoo war a fexe ba nga xamante ni dafay yemb dafay màgg day gën jëm kanam sénégalais yu gën ko xam ñëpp gën ko comprendre fi ñu war a féete producteur ñu féete leen fa fi nu war a féete les chefs d'entreprise aussi ñu féete leen fa pour boîte bi gën a jëm karam moom nag ginnaaw bi nga xamee ne xam na bu baax défi yi nga xam ne ñoo koy xaar ci agence bi mu ngi xam ne ne lépp dina jaar yoon. parce que on envisage de faire cinquante pour cent d'ici deux mille vingt neuf en terme de transformation parce que l'objectif avec le régime actuel mooy. les produits bruts duñu jël rek di leen exporter mais on fait d'abord une industrialisation transformer leen avant exportation. defi yooye nag mu nar ci dem ak ay personnels yi nga xam ne engagé nañu te itam xam nañu seen wàll ci liggéey bi. nous devons continuer à explorer. dañu war a dem di dugg ci yeneen marché yu bees yaatal yëf yi lu ni mel dina tax ba ñu gën a mën a dëgëral suñu taxawaay ci àdduna wërngal këpp xam nañu bu baax a baax li ñuy xaar. te gëm nañu it ni mën nañu dékku lépp luy xeetu jafe-jafe pare nañu tey jii gunge sañu directeur général si mbébét gi mu am muy jëmale kanam liggéey bi fas nañoo yéene it xar ci sañu tànk tubéy avec engagement avec détermination et avec loyauté. mu doon kon équipe bu bees bi nga xam ne moom moo nar a wéyal liggéey bi ca ASEPEX ñoom nag li ñu nar mooy sukkandiku ci projet PASTEF bi waaye nag donte kii di Zahra yan càmm dalal na leen bu baax ci bëréb bi teewul nanguwul benn yoon toog di xaar presse bi.